oustaz ba léegi yaakaar naa bokk na ci actualité bi laan leen tamit yéen oustaz yi wala yéen imam ndax euh, fan yi wala démb la sax dañu gis ci benn journal mu bind ci ñaari imam soxna moo ndox seen diggante ba tribunal am kenn ki la ne soxnaam léegi keneen ki jëlaat ko après mujj gi mujj tribunal léegi <laughs> mu mu mu mel na nag réew mi ngi bëgg jaxasoo nag réew mi ngi bëgg a jaxasoo yow. nit ñi bëgg jaxasoo. <laughs> xam nga loolu dafaa am mbëggeel gu jeexul lu ne xaj na ci jeexul lu xaj na ci mag ñi bu yu mel noon amaan di naan la demal kër ga seen kër nga toog déglu ma ñu xalaat suñ toogee weeru yàlla muñ la ñu xam ne mën nañ laa fase suñ toogee semaine di la gént ak di la woo téléphone ñu xam ne mënuñu laa fas sëriñ Babacar si nee soo amee fas ci sa kër bàyyil turu fas del wax daaba ji daaba ji rek ndax boo ne fas fekk nga xuloog sa jabar mu ne damaa fase fas ak fase dañu ne loolu <laughs> damaa fase su ko defee nga ne waxul dëgg ñëpp daje fa ne sëñ bi boo ko fasewuloon du ko wax waaye bu ñu fontoo waaye ak si sikkim bi yow itam nag mais loolu lay wax moo tax euh, euh, charia nag lim ci wax mooy bu fekkee imaam bii daa fase ndaw si toog ba jàpp idda ba mu jeex mooy bu dee gis règle mu toog ñetti règle ba mu jeex wala du gis règle mu toog trois mois ba mu jeex wala muy ko ëmb mu bàyyi ba wasin su idda je jeexee beneen góor bu ko soxla mën na koo takk sariya may na ko ki ko takk bu dee li ma wax am na doxaan jabari jàmbur moo jaaduwul bëgganteeg jabaru jàmbur moo jaaduwul génn jabaru jàmbur moo jaaduwul nit ku am jëkkër ba pare bis bu ni jigéen góor tëddee la foo ko teg di am jëkkër damay wax ne ku mën a toog atum lëmm xamoo sa jëkkër sa jëkkër xamu la am na keneen ku ngeen di xamanteel baa xam nga ne mën yu mi ci nit ci góor gi baa xam nga ne mook saw mi ci góor gee yem maanaam ku njàmbale doo sawi da ngay njàmbale mën niyu benn nga def masturbation fooye sa awra sa mën yu génn walla nga njaalo ji mu génn kon toog naa at man xaw ma góor la am wala ji bi léegi lay tëlay bi léegi lay tëlay da ngay fenn da ngay fenn <laughs> day kàcc mu ngay dóorante bu baax man maa mais ragal yàlla gu la koy tey de falaam dama lay laaj nga wéet góor nga bëgg góor gi mu bëgg la mu man li nga bëgg ana ragal yàlla wa yuminuuna bil xëy bi newu fa yàlla ne na am na ñoo xam ne bu ñu wéetee lañ may gën a bàyyi xel te buñ ñu wéetee ko wa yuminuuna bil xëy bi moo tax bu fekkee wacc am na idda jeex na ki takk sañ naa takk loo bu tribunal a ah, bu fekkee li nga wax la demee tribunal amu ci yoon de waaye menace amu fi sëñ Tuubaa ne ak durru wan nafaku ma ngaa fàttali ma njëkk a wax ak durru wan nafaku laa mina rahmaani laysa minal biidaani wala suudaani bu tëkku doon rey deenaa bu yàgg man Iran mhm. waaw yaa ko gën a xam manaan oh. bu tëkku doon rey njabar di rey liggéey ni di rey wuti ay sëriñ indi di rey dee bu yàgg nit mënul dee te datam jotul lan yusibanaa qul lan yusibanaa illa ma kataba lahu lana ndax huwa mawlaana yàlla nee na maa dara mënu leen a dal te ànduma lu ma neex mu dal leen lu ma neexul du leen dal ni ma ko waxee sama bopp noonu noonu laa la ko waxee sit bi gën a siiw ëpp doole yeneen siti bu ñu sañoon rëppeel ko. ni tam mel noonu. au lieu que mu làbbali fasam jéem laa raw mu tolloog yow di la dóor di la caravasé mooy aada Sénégal xeex nit rek heureusement ba nit amee borom mu yàlla mais bu nit amuloon yàlla fu mu jëm xoola wujj gi liggéeyante doomu baay gi liggéeyante nga dem ci usine yi liggéeyante entreprise yi liggéeyante dem ca euh, ministère ba liggéeyante tout le monde liggéeyante tasar waaye ku yem ci sa bopp du problème man de alhamdulillahi rabbil alamin du tiitar du dara man sama métier crème la ndox mu sedd galaas galaas cinquante francs ndox dix francs crème di di fara ca laa yem sëkk na soxlawuma état soxlawuma lu état yor soxlawuma kenn nañ ma bàyyi yàlla rek yàlla lu waay yor teel soxlawuma ko sama benn nit daf ma doon yónnee ne naa ko séddaleel ci benn mbir kama daan oo téléphone ma wax dëgg jëkkëram mu mer ti mooy intermédiaire bi mm-hmm. ma ne ko yow xamoo ma mu mer mm-hmm. ootuma téléphone luñ ko yóbbanti du ko yónnee dama koo soxla léeg-léeg mu oo ma téléphone na nga dama la namoon rek di la oo fekk day fen daa bëgg a wax kilifaam ni ko woo naa ko jox naa ko ko mm-hmm. te joxuma dara boo seetaanee sit internet bi danga xam yow sa bopp ki nga yebal xam na ko dërëm la ma joxul te tey laa gën a tedd Babacar Sy amul morom sëñ Babacar Sy fi mu jaar ak man Seydi Aboubacar fi mu jaarak ak man laaj ko Pape kalifa Samb bii gàdde raw du Serigne Serigne Cheikh ba ci laaj ko ko damay dem tournée di waajal semaine culturelle bu Seydi Aboubacar te yoruma cent franc ku ma gën a dëgër fit nag fi nga ko gis amul damaa ñeme lu xotteeku ñeme lu xar. Hmm. keroog benn waaye daf ma ne Iran sa waxu léegi daa gën a tàng ma ne ko tàngul daa bax hmm. fi mu ne damay baxal lu xew dama leen di wan ne gaynde amu fi. Hmm. dangay man boo ma raayee ñu juboo soo ma forcé ma làng kenn du ma forcé soo ma raayee teg ma ca naajo ma taxaw fa soo ma bëggee bousculer nag da ngay def li man kenn du ma tànnal. maay tànn lu ma neex. masoor naa léegi nag mm-hmm. ah mag mu toll ni man yor jabar yor yi doom nga may tànnal naan ma jaaral gauche jaaral droit ay goo nga naan ma gauche ak droit mm-hmm. pour lan ma war a dem turne ma woo Pape Khalifa Samb sama néeg la daan fanaan ci sama lal mm-hmm. moo ne ca rawdu maam Cheikh ba ci Tiwaawoon ngi tudd Pape Khalifa bàyyam ma ngi ci jumaay sëñ Babacar ju suul ma ñëw ne ko demal sa yaay abal ñu termos buñ def galaas ak jus yi ñuy jënd def ko ci yoruma cent ma ne ko Pape Khalifa lebal ma sa yaay xaalis bu dee am nañ ay natt bu yuy weesee ma fay ko mhm. mu départ ma ne ko bàyyi ko parce que damay bañ bu ëllëgee mhm. mën na maa mere mhm. baa aw ma lu ma ko fay mu dal sama kaw man fi muy gis jom dama bëgg jom man li ma bëgg ci jom xaw ma nu mu toll su ma sañoon kenn du ma defal dara ndax doo ma mën a wax dara mu dem jëli termus bi indi ne ma waaw bàyyil ma àbb ko rek gannaaw yoroo ma ne ko bàyyi rek ma dem ci raw du sëñ Babacar si damaa dem ci raw du sëñ Babacar fekk fa sëñ Babacar raw du kër la léegi-léegi nga dégg ko naan damaa dem ca rawdu ma ñaan rawdu nuñ ciy ñaanee borom rawdu bi ngay ñaan mais doo ñaan kër gi kër bëgg naa nga ñëw naan kër may ma ceeb fu la kër di maye ceeb bëgg naa mi moom kër gi na la may booy dem ci raw rawdu dëkkuwaay nitu yàlla bu fa tëdd la boo demee julli ñaar rakka bu daganee naafi la ñaanal yonent bi ak saaba ñaanal ko ñaan yàlla ne ko jaam bi yaa ko bind yaa ma xiir ci moom yaa ma ko bëggaloo yaa xam li nga denc ci moom ma lay ñaan ti darajey li nga ci denc nga fajal ma soxla bi loolu la ñoo ñaanee ma wax fa loolu ñibbisi ci daara ji di jaabante ci ëtt bi Pape Khalifa ñëw dugal termos bi dugal termus bi bi mu ko dugalee mu fekk ci lal bi benn enveloppe mu ne ma Iran enveloppe bi yaa ko moom ma xool ko monde bi yépp réew mu ne timbre ma ngi ci kaw mu ngeeg man mu ngeeg man kenn mënu koo nangu noppalu leen dara ngeen ci manu réew mu ne temb ranga mi ci kaw am laaj ko Pape Khalifa Samb man waxuma la ko dee mm. kuy demal tiwaa woon nga ne fu raw du Serigne Cheikh nekk nga yóbbu sa site internet ne ko Iran wax li waxal ma jël ko ma jël enveloppe bi roof ci big mm-hmm. ne ko taf bii yu bees tàq enveloppe bi noo gën a génne muy gën a fees noo génne lu mu tollu day gën a fees mhm. Babacar si defal na ma loolu Seydi Aboubacar defal na ma loolu maa ngi ak ba léegi suma biir koofa fond ma def ci tournée ba mu jeex te xaajul ma ne naa noppalu nag ku am loo noppaloo noppalul fi ne bu ma amoon kër fa dem tëju fa ba àdduna tukki du jeex Seydi Aboubacar ma defal loolu. mën na ko gisal ko seede ah lu ne ci biir coffre fort noo koy tegee ba du ma ko wane. jamais parce que loolu la ma mën a defal ci daaraam ji ma ko yoral. daara ji ma ko yoral. war na maa fay weer wu dee moom maam. Hmm. kon war na maa jox lu may fay weer. Hmm. dama laaj ko papa xalifa sàmb mu nga ca Tiwaawoon ca raw du maam maam Cheikh ba demal nga laaj ko man duma xale de fi may gis nii damaa tuuti rek waaye yu bari fekk na ma fi nag du gone de yéen laa wax duma gone pour wax la mag ñi euh, soo àndee ñoom lu ne ngay am moom lañ tuddee maam suñ Babacar gis nga àdduna boo ci nekkee fexeel di roy ci mag ñi bu ñu teggee tegal del seet koy waxtaanal mu lay wax seen démb nga mën a roy ci ñoom soo demee nag ba jigéen itteel la bam jaral la lenn li ba yoon di ci dugal loxoom boo waxee ne gëm nga yàlla am na lu manqué nañu jël émission Bougane Gueye Dany bi muy waxtaanee ko wàcc nga idda jeex na keneen for na ñël xanaa nga ñaan mu waddile nga foraat noo <laughs> la xew lan moo xew boo ma ne jigéen ji gannaaw gi daa daa waŋ ma ne la laaj ko duus bi moom xam na ko laaj ko ko te toogukaay la rek yàllaa ko defal muy ay éponge pour nga mën ci dëju bañ a gaañu mm-hmm. mais du pour ay wëgër wëgër da ngay mel ni maam jaara busa maam faawadd wele sëy ngir doom ju baax maam jaara fanweeri at ñett la am moom moom màggalu 26 gi mooy borom moo jur borom loolu moo gën jur milliards yi doom yi dooni président ana buur yi fi nekkoon alko nanu ñëpp alko kenn bàyyiwu fi xalifa waaye mag ñi kër goo dem fekk fa xalifa kon ni ñu bàyyi xëccoo ci di ko waxtaanee fase nga takk naa lu xew lim koy menacé bu ko manoon du ñàkk jabaram eh man ko waxal lu la neex du ma la déglu mu bañ a déglu dana ma déglu dana ma xool duma déglu kenn bu ma doon déglu nit du ma waxee nii man li may xare ci réew mi bu ma doon déglu nit du ma wax c'est ça kon gannaaw yow keneen jël na ko nga di ko menacé danaa la def lii def boo ko defoon sa jabar du dem ah. am déet sëriñ Babacar nee na ku la ne boo defee lii am lii xoola ndax am na ko moom walla déet soo gisee ne amu ko ay talaatala ak i mbéj ak i dóor daa bëgg a mbëkk sa xaalis c'est ça loolu moo ci nekk moo tax nañuy sama xarit daa wacc ci jabaram euh, damaa wacc sama jabar sama xarit di ko takk après xarit day tee takk jabar lu ci ne dagan ko dagan na ko hmm. ilimaan mooy lan lan mooy imaam imaam mooy njiit loolu lay firi hmm. suñ doon julli léegi nga ñu hmm. loolu imaam loolu jiit di suñ doon julli léegi nga ne suñu kanam ñu topp si kaw loolu imaam kon kenn ki wacci kenn ki jël aayul bàyyi la ki jël te nga muñ ah man mu wocc ko bési waaye gëw maa mu nobal la nag nga baal ma ko nag mm. dégg nga